Euh, jàpp bu njëkk bi muy baa ñaarel bi di kii di Doro gay Doro gay ñu gën koo xam ci PDG mais PDG defe naa président euh, société la je pense que loolu ngeen dégg mais Doro gay kenn xam kenn mënu laa wax ba léegi PDG wu lan la euh, dafa bëgg dama bëgg a indi rek ñaari leeral yu gàtt te leeral yi dama koy tàmbali déjà ci li nga xam ne moom mooy procureur bi fi nekk nii te li tax ñun ñuy gaaw toujours di def ay alerte di bëgg a wax ci ci ne donte macha allah suñu njiit yu am solo yi te am fulla te am fayda te vraiment gaaw ci mbir lool te changement bi gaaw lool ndeysaan muy am ci nu mu gën a gaawee donc euh, gis ñu ñuy def liggéey bu jaggi dayoo te gis nañu sax ndeysaan mi ngi mel ni réforme mi ngi am ci justice donc dafa baax ñu bàyyi loolu xel ci lu mu gën a gaaw bàyyi leen xel ci li wax justice bi nga xam ne moo fi nekk sur place du bu baax bi parax paraxe yi ngeen di gis ni procureur de la république bii ngeen gis muy woo tey euh, Bah Diakhaté te Bah Diakhaté di ngeen gis ci ay fan yu néew dinañu jéem a pamte pamte dossier am gaawante ko génne ko comme niñ ko defee woon Kalifone Sall bu leen fàtte ne Doro Gaye saa bu amaan même procureur bii la daan woo procureur bi dooro gay daf ko am li américain dina en speed dial maanaam yor téléphone am allo monsieur le procureur voilà donc kooku ñu jàpp sama nit la bàyyi ko mu dem maanaam boobu genre relation la dooro gay am ak procureur bi bàyyi leen ko xel procureur bi woo dooro gay fi may wax ak yéen nii ñu ngi gaawantu ci li mu gën a gaaw pour am médiation diggante dooro gay ak ki ko porter plainte pour jël cinq cent millions jox ko kooku après Doro Gaye dem xam naa giseeg Macky Sall wala ñoñoom ñu jox ko xaalis mu indiwaat fay la nga xam ne moom moo des ci mbiru bor bi ñuy wax bor bi nag dafa wundu li ko wundu déglu leen ma déglu leen encore lu baax a baax a baax li indi li nga xam ne moom mooy mbirum suuf si ñu toppee Doro Gaye mooy nervi problème mu nervi yi ak rey nit ñi nga xam ne ak ñaawteef yi nga xam ne moom la ñu doon def ci réew ma amoon na fi ay temps bu fekkee yéen may bàyyi xel maa ngi leen doon wax ba leen di wax ay waxu Amadou Sall ak ay suuf yu ñuy jël ak financé ci li nga xam ne moom mooy nervi yi donc lii alalu financement nervi yi la ba léegi rek li nga xam ne moom moo daan financer li ñuy rey moom moo daan financé li ñuy toroxal moom moo daan financé jiiñ Ousmane Sonko moom moo daan financé li nga xam ne di fexe nañu ba Ousmane Sonko bokkul ci ay élection loolu yëpp dafa bokk ci ay financement ak ay liggéeyu Doro Gaye donc bàyyi loolu loolu loo xel c'est une personne très dangereuse et très connectée au Sénégal bàyyi leen loolu xel sénégalais nag ñun dañuy dox ci ay sentiment da ngay jékki man nee naa leen réew mi du réewu sentiment Ousmane Tounkara sax bu defee lu dul yoon teg leen ko ci yoon rek bàyyi leen sentiment mënuloo on ne peut pas faire des omelettes sans casser des œufs maanaam nee nañu kenn mënta defar omelette te tojul ay nen loolu c'est normal et parfois nen yooyu mën naa doon yow mais dama ne concentré wu leen ci mbirum Doro Gaye bii bu baax xool leen procureur bii fa nekk c'est le même procureur qui accusait ces jeunes ñu def leen mandat dépôt ñu ubbil leen ay dossier euh, comme niñ ko tuddee ay dossier d'enquête bàyyi leen ci biir kaso yi un an kenn du leen atte ba jaxate ñaata dossier la fekk ci kaw table procureur ñaata dossier sénégalais ñoo nekk ci kaw table procureur ba jaxate mooy sénégalais bi gën a important ki nga xam ne dañ ko fay dix millions déglu leen ba jaxate dégg ngeen ñu ne leen bi ñu demee ci conte Wave am dañu gis dix millions yoo xam ne Mamadou Gueye ak ñu tudd euh, ka nga xam ne moom moo ministre ba waaja yoroon euh, mbirum euh, sécurité maanaam kii yooyu biram biram biram Diop ak ñeneen ñu ne leen ñooñu ñoo ko yónnee dix millions yi léegi dama leen di laaj naka nga mën a attee kii saaga doo atte ka nga xam ne moo ko fay muy saaga loolu du mën a nekk nan nga mën a atte kii nga xam ne yow moom mooy saaga moom mooy def tojaange yi waaye ka nga xam ne moo ko jox xaalis bi pour mu def tojaange yi nga ne doo ko atte Bah Diakhaté est un mercenaire Bah mercenaire la bu may dégg déjà ñuy tudd turu activiste daf may metti sama biir xol parce que je pense que vous ne savez que activiste li mu signifie Bah Diakhaté mercenaire la Doro Gaye est un danger public Doro Gaye ki ko jàpp nii dafa parax paraxe mu jàpp ko balaa ñu koy changer dossier bi di daanu ci loxo procureur bu sérieux loolu moo tax procureur bii jël dossier bi procureur bii dina fexe gaawantu dossier Doro Gaye bi jéem indi médiation jéem a indi Doro Gaye dugal xaalis ñu bay ko mu dem mbirum suufu Sénégal procureur bi ci boppam daf ci bokk tappale suuf yi nekk sénégal Sénégal doyen des juges Maham Diallo daf ci bokk maanaam maki Sall bu daan jëflanteeg yow dalay tâché Macky Sall du nit koo xam ne dafa daan jëflanteeg yow rek bàyyi la nga set daf lay jox loo xam ne ëllëg ak sibir day am preuve maanaam dalay piégé Macky Sall procureur am yëpp daf leen piégé juge yëpp daf leen piégé pour ñu continuer ko defal sale boulot déglu leen ma ma wax leen encore une fois maki Sall juge fi bàyyi yëpp daf leen xoj procureur yi fi bàyyi yëpp daf leen xoj parce que ëllëg ak sibir bu leen ne hee yow defal defo comme sa mu génnee dossier yi nga xam ne moo la moo gàllankoor yow moo la jàpp donc bàyyi leen loolu xel Macky Sall suuf su bari la joxe ci Sénégal les complices doivent être arrêtés ce procureur c'est un bandit xeebu ma nag ñu fi teg ndax xam naa leen ay liggéeykat lañu ndax ñun xam nañ Seydina Ousmane mu sell te xam nañu kuy Bassirou jomay fay ku xam président Bassirou Diomaye ñun xam nañ ko dama ne fexe leen lépp loo man procureur bi bu mu bàyyi Bah Diakhaté bu mu bàyyi Doro Gaye ci lu gën a gaaw